ibnul xadiimu samat réew maa ngi lay nuyu tey ñaan yàlla may la dimbal yal na nga yeggale naalu gaay baax yi fi woon yal na nga yeggale naalu gaay baax yi fi woon sa ko matal mooy ñaan yu baax ñëpp xëy la gërëm ak seex mag bii la wax la yàlla saxal woyof sa ko waaye daal kuy wax na wax la xambir baa di yàlla gabam da leen ti jéem a jubal jox naa la saa ruu gi ak saa xol bi ak lu ma jur saa yéene ak lu ma jëf loo wax ma def ko waxal bindee fi maase na booloo bindee fi maase na booloo xam ni yaay ci fi woon nuy sabtara boolaate ñaan di déglu ndigal sunu xol yi sedd na sunu xel dal te yaa ko waral yal na la yàlla musal ci ndog nga jëf ba matal digal nga sañ mag te boo say doom ñu topp ci yow Seex Bamba jiite la yaa sa rek nag nu dimbal alhamdulilah am daan cant war ma ndax cant bi fi ci yow Seex Abdou maa ko jotal yaa yor la Bamba yoroon yaa yor la Bamba yoroon yaa yor la Bamba yoroon sampaat nga kër yi fi woon ko matal yaay mbooleem lu Seex Bamba naa loon di ko matal yaay xutbu yaay xawsu yaa najul xadimul asamtu wala bërëb leen waa noo ngi sakku nimal buur yàlla noonu nanu maan nan ya jamat ku dem jolof xam ni njëbal mooy ya wér doxalal yal na la yàlla saxal tuuba yal na la yàlla saxal tuuba